comme ni ñu ko defee saa ne rek jukki ci tawat yi benn indi ci ay waxtaan indi ci ay leeral tënk ko beneen ñu duggaat ci leneen tey nag ñu wax ci li nga xam moom la ñuy wax feer bu ñuy wax sinusite sinusite ñenn ñi di ko wax yaaf am na sax ñu koy wax sojum dëkkaale ndax nit ki mu dal day gis ni moom foo ko fekk dafay soj rek bakkan bi mel luy xasan ci biir muy xëñ xëñi lu mel ni put bi di xasan mu koy yëg ak diggante kar nopp bi fa lay yëg ci diggante boobu lu mel ni luy ñammi ñammi ci biir boole ko muy soj lu bari di sëqat lu bari mën nay metti bopp bi lool rawatina bu fekkee dafa sëgg di tistuli tistooli lu bari di génn yenn saaye bu ko daanelee ay ñannexit yu bari di nekk koo xam ne yenn saa it dinay diisal bopp bi di ko metti bët itam mën nay faral di ko lëndëmal ngeen ci kon feebar la boo xam ni bu sonal nit ki nga xam ne moom la dal ndax di nga nekk nekk ci ay biir sax bëgg tout le temps nga bëgg tistóori tistóori da ngay am kersa ci loolu wala nga bëgg di ñandu tout le temps day am kersa ci loolu kon feebar la boo xam ni ñoom dal sonal na leen waaye nag alhamdulilah luy wér la d'abord baat bi boo ko déggee am na baatu sinus am na it dama lay faral di fàttali leen saa yoo doon déggee it rek mi ngi tekki inflammation ou infection sinus kon sinusite infection ou inflammation du sinus comme ni ngay déggee beneen feebar boo xam dafa jeexee it maanaam lu jeexee it rek da lay wax ni infection la wala inflammation lu mel ni cervicite lu mel ni pancréatite infection ou inflammation du pancréas dinañ def waxtaan sax moom pancréatite lu mel ni bëri na boo gis mu jeexee titre it rek dalay wax ni yow kat cër boobu ko jiitu feebar na feebar boo xam ni moo xam ci boppam la jóge moo xam dafa am microbe wala lu bokk ci moom lu ko teg sinus yi nag sinus bi nag moom nit ki mi ngi ci am ñeent mi ngi nekk ci boppu nit ki maanaam boo jëloon misaal kii moom xam naa tunkara la waa Kolda kii lii mooy sunu si fii la nekk ñaar ñooy njëkk a nekk fii ci lañuy wax mbaaru jë bi dafa am jë ak mbaaru jë fii mbaaru jë la ko wax ñaari sunus ñoo njëkk a nekk fii fii tamit ci lex yi sës ci bakkan bi mu am yeneen ñaari sinus yu fa nekk muy ñeenti sinus muy ñeenti sinus ñoo nekk nii nga xam ni ñoom ñeenti nag ku ci nekk dafa am benn genre sarale boo xam ni moo koy lëkkaleeg paxu bakkan yi ndax ci biir bakkan yi dafa am ay pax yu fa ne maanaam waxuma yax bi mais ci diggante yax yi foofu am na li nga xam ni moom mooy ay pax yu fa nekk moom da koy relier ak pax yooyu moom lañu ñuy ost ostium yi ñooy ñëw fii genre ci wolo boo xamante ni moom mooy dem ci paxu bakkan bi moo koy relier moom la ñuy wax ostium bi nii la mel ci jëmmi doomu maanaam bu ñu ko doon gën a xóotal ñu jindi deruñ ki bàyyi fu yax bi kese ak kaang bi ci misaal dangay am lu mel nii kii moom ba ñu joolaa la Pape Joolaa bëtu joolaa yaa ngi nii daan xujj rek ak paxi lii mooy maanaam boo jëloon yàq yàqu nit ki rek ŋaam bi ŋaamu kaw bi ŋaamu suuf bi nga dindi ŋaam su bàyyi fi ŋaamu kaw bi bàyyi fi tuñum kaw bi bàyyi fu nuur bi ci yàqu bakkan bi bàyyi fi nekkatañ bi yii cër ñoo nekk ci bopp bi waaw defal ko defal ko fii moom nopp joolaa bi rek quoi fii nag ci diggante yii yax yii pax yi nekk fii ci la yii di sinus di verse maanaam pax la sinus pax la boo xam ne ab gas bu yam la pax bu yam la ñëw fii nag yeneen pax yi muy kàmb yi ñu wax foofu ñoom ñoo ñëw dafay versé wu dafay versé wu ci li nga xam ne ni mooy yaxu paxu bakkan bi fii mu nekk ay tur ay genre cratère la moom la ñuy wax ostéum pour lan mu mën a lubrifier jàllale ngelaw ndax bakkan bi buy ngelaw li ñëw day ànd ak poussière poussière boobu muy àndal dañuy bëgg kon ngelaw bu duggee ci bakkan bi dañ bëgg mu jaar ci canon yi def genre wër-wër bu wëree day mel ni comme mm, ngelaw lu wër bu ko defee suuf yeeg poussière yi wër boobu moo tax ñu mën a diig buñ diigee. li nga xam ne moo nekk ci kaw sinus bi ndax sinus bi nee naa yax la dafa am lu nekk ci kawam lu ñuy wax muqueuse benn der bu suux bu nekk ci kaw boo xam ni moom mooy defar li ñuy wax ak li ñuy wax baqatay moom la ñuy wax ci tubaab morve moo tubaab naa la ki sa morve sa mouche baqata boobu nag moom li muy jëriñ mooy fexe ba poussière yooyu buñ ñëwee mu collège da koy jàpp pour bañ a dem poussière bañ a dem àgg ci xëtaru nit ki dafa indi jafe-jafe baxata yooyu nag di mër bu fekkee ni ki nag da ko ñandu ci la tudd ñande xit comme tuflit rek lor la tudd ci biir gémmin gi mais bu ko nit ki génnee ci gémminam dootu dootu tudd lor day tudd taflit ndax da koo tufli kon taflit la da koo ñandu kon ñande xit la waaye morbe bi moom baxata la fee lor la sali tubaab na salive ak crachat fii nag li muy ostéomi nga xam ne fala la ngelaw jaar gannaaw ba nga xam ni muqueuse bi nga xam ni moo lalu ci kaw sinus fii nga xam sa liggéey mooy defar moof boobu nga xam ni ñanexit ba xata bi ndox moo xam bu ratax la am tuuti xorom am graisse am lu ñuy wax glucoprotéine moom moo nekk foofu pour lan di jëriñ doomu aadama poussière bu war a ñëw mu téye ko ba nga xam ne poussière du dem ci xëtër yi nga xam ne kon suñu si kon dañuy jox liggéey bu am solo waaye teg tam a bopp doomu aadama kaang bi nii li ñuy wax kaang bi mooy bopp bi karaan bi ak yax yi nga xam ne mooy yax ci kanam gi muy mâchoire yi muy ngaamu kaw geeg ŋaamu suuf bi ak nekk tam xam nga ay yax la seen diggante dafa boo gisee am na espace yu ci nekk liiri sinus yi daf fay dox doxaayu kusine day mel ni ku fa taxaw pour diisaayu bopp bi nit ki du ko yëkk pour da koy def genre amortisseur da koy amortisser sinus yi bokk na ci li muy jëriñ foofu waaye ñaatam bokk na tam di jëriñ bu nit ki di wax voix am li nga xam ne boo doon defar euh, baaful musique caisse bi nga ciy def pour baaful bi di résonner li ñuy wax caisse de résonance boobu sinus itam day jëriñ tax wax ji mooy koy indi écho boobu bu tax nit ki bu waxee mu mun a foor mu génn caisse de résonance la moom it kon sinus cër la boo xam ne bu am solo ci jëmmi dooma doomu aadama bi di liggéey liggéey boo xam ne bu am solo la ci doomu aadama bi sinus boobu nag lakkalalu bu fekkee dafa am inflammation wala moom infection ci li wax ni dafa am yaaf am na nag ñoo xam dañuy gis ñuy bënn fii seen bakkan bi ci bax rek ñuy bënn fii fii lañ fii bënn loolu du yaaf yi yaaf yi fii la nekk loolu pellu la tudd mooy cornée yi foofu deret moo fay nekk ñoom dañ koy bënn ne dañuy dañuy génne mais loolu du yaaf yaaf yi ci wet yi la nekk yaaf yi ñoo nekk nii ci wet yi ñoo nekk nii ci wet yi comme fii mais ñoom li ñuy bënn fii loolu mu ngi tudd pellu muy cornée yi moom la ñuy bënn bu ko defee nag nit ki nag bu fekkee nag dafa am inflammation bi nga xam li ko mën a indi lu mel ni soj nit ku soj soj bi mu soj muy ñand ñand yu bari bu yàggee mën na dem ba indi inflammation ci li nga xam ne mooy si bi mu saddal ko wala nit koo xam ne dafa am yenn infection yi mën na ko ko indil mu am li nga xam ne mooy sinusite boobu wala nga gis koo xamante ni moom ci li nga xam ne fa muy dundee saxaar si daf fay far di bari wala yenn produits chimiques yoo xam ne da koy utiliser yu bari yooyu tam mën na indil inflammation ci li nga xam ne moom mooy sinus bi bu ko defee mu am sinusite sinusite boobu nag gis na fi mu féete bakkan bi bopp bi di diis di metti di ko metti bët yi di lëndëm bakkan bi di fatt yenn saa yi muy xelli ndox bu xaw a jaune yenn saa yi mu xaw a verte tuuti muy mel ni ñanexit bu tax boobu di tistooli lu bari di ko yóbbee tamit naqari deret bu sëggee comme ni ma la waxee sànq bopp bi di diis gànn ba nga xam ne bu sëggee day mel ni bopp bi day bëgg daanu yooyu yëpp ay mandarga yoo xam ni inflammation sinus bi te sinusite bi moom moo koy indi kon sinusite di sinus bi di yaaf bi ndax sinus moom la olof di wax yaaf rek comme ni nga may waxee chaque jour rek nit ki day def la mu feebar la moom lay tuddee feebar bi yaaf yi ñeent yi ci nit ki am benn ci ñoom bu amee inflammation wala infection rek nit ki yëg si ñooy am na ñoo xam nag parfois ñeenti yaaf yëpp sax ñooy am inflammation boobu wala benn wala ñaar wala ñett mais lu ci mënti am rek kenn ci yaaf yooyu la lalu seen kaw muy mycose bi fa la inflammation bi nekk mais moom yaaf bi yax la rek boo xam ne lu ñu gas la fii comme ni nga xam ne mooy fosse nasale yi paxu bakkan muy yax yi fu mu nekk nga xam ne air bi fa lay jaar ñoom ñooy ànd circuler dem ci li nga xam ne moo jëm ci xëtër yi mën ko dimbali kon boo koy xool bokk ci liy dimbali nit ki ba yenn saleté yi système la boo xam ne yenn poussière rek yenn saleté yi nga xam ne waroon na dem ci xëtër indi ko problème mu bloqué ko kon sinus bi ak lakalal mi muqueuse bi di defar li nga xam ne mooy baxata bi du morve bi kon boo ko dee xool liggéey la cër bu am solo boo xam ne bu yàggee feebar nag ak infection yi koy yàgg dal nag bu yàggee mën a dem ba indi nit ki bopp bi problème ndax bopp bi sinus bi da koo jege te microbe bu fa yàggee dem rek mën naa dem ba indi li nga xam ne jafe-jafe ci bopp bi moo tax ku am sinusite nanga nga fexe nga faj ko mu wér benn yoon te bañ muy répété wu ndax sinusite bi buy répété répétition yu yàgg yooyu bu yàggee day indi yeneen jafe-jafe ci wàllu wér yaram nit ki ba ci problème appareil respiratoire sax mën na ko indil problème moo tax olof di ko tuddee sojum dëkkaale ndax la nit ki day dëkk foo ko fekk rek tislu ñandu sëqat tislu ñandu sëqat boobu li koy rek mooy inflammation bi te nag mu nekk loo xam ne nag lu mën a dañ la mais dafa fekk nit ki rek am benn hygiène de vie ci boppam waaye tamit bu ko dalee rek mu faj ko te bañ ko négliger di moytu tam di nekk ci foo xam ne conditions yoo xam day tax ngay gaaw a socc lu bari ndax ñiy faral di socc ñu bari ci soj socc yu bari yooyu tey ne mu mujj gi day mujjee inflammé sinus bi mu nekk loo xam ne luy dëkkee ci ñoom la ci tënk loolu lañu indi woon tey ci wàllu li jëm ci sinusite di yaaf. comme ni ñu koy defee saa su ne ci seen yóbbal ak borom tawfeex tey ñu ñëw ci góor ak jigéen yu toll ci am jabar wala jigéen mu toll ci am jëkkër bëgg ko te amugu ko ay ñaan yoo xam ne yomb la yoo xam ne bu ko nit ki defee dana ko dimbali lii nag baax na ci góor baax na ci ku jigéen dangay dem ci Al Imran aaya 14 juli nasibu shawaati mina nisaa ba axira aaya bi nga bind ko jàmb ko saafara bu dee jigéen la mu boolee kook ñaari téeméer ak ñeent fukki doomu guro maanaam cent 240 doomu guro lay jël boole kook saafara bi sangoo ko bu noppee mu jël guro yi mu saraxe ko loolu pour ku jigéen ki la bu dee ku góor koo xam ne fu mu dem ñaani ñu dàq ko fu mu dem ba wax tam ba yaakaar ñu bàyyi ko nga xam ne fu ne dugg na fa mënuta am lu koy digal mooy moom it joué joué naa si wu sawaat mi ne saay boobu aliman ay 14 na ko bind jàmb ko saafara waaye moom mu boole ko 383 doomu guro bu dee jigéen bi 240 la bu dee ku góor gi 383 doomu guro lay jël mu jàmbee ko saafara bi sangoo ko jël guro yi saraxe ko ci kat ñaal bu ko defee ci diir bu gàtt su dina ko booleel kaa xam ni dana mën a nekk moom ci kat ñaal loolu moo leen doon indil ci seen émission jotaay ak borom tawfeex mu doon seen yóbbal ak tawfeex di leen jox daje ci beneen waxtaan ci beneen anam wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu gaa ñi jéem leen ku jéem yàlla buur moom dina la la jàppale aduna xëyu rekk jikki daal di sotti benn benn ñaar ñaar moo lay yóbbu ñett kañi naa ngeen jéem kañi naa ngeen